gannaaw bi nga xam ne ni train express régional tàmbali na daw ak bus rapide transit nguurum Sénégal am beneen projet ngir yombalal dem gi ak dikk gi ci biir capitale bu Sénégal. donc projet bii nag day ñëw lëkkaloo ak ñaari projet yu mag yooyu pour gën a améliorer transport commun ci ci Ndakaar gën a yokk qualité bi gën a yokk sécurité bi ak ponctialité bi ak wax dëgg fa yàlla ay liggéey bu rafet rafet. bile projet day gën a méngaleeg jamono wàllum transport ci réewum Sénégal te dina tax ba bërëb yi nga xam ne nii dañ cee amoon ay jafe-jafe ngir am ay bis yu fay dem ñu mën koo am a ci lu yomb. mu nekk projet bu mag projet boo xamante ne fileeg ñaari at. première phase bi dina permettre ñu dugal ci réseau bi 400 bus yu moderne yoo xamante ne comme ni ma ko waxee gaz day fonctionner dina tax dina permettre. ñu restructurer quatorze lignes transport en commun. gannaaw bus aftu yi ak i dakaar dem dikk projet bi day ñëw daal di gën a yombalal liggéey bi yi lépp opérateur. projet bi projet pour opérateur yi la muy opérateur privé yi wala opérateur public yi nga xam ne ñoo nekk soit aftu soit muy Dakar dem dikk projet bi seen projet projet bi ñëwul pour supprimer ay lignes. mais dafa ñëw pour defaraat ay lignes ñu gën a méngoog système yi nga xam ne ñu ngi fi muy TER muy BRT. ñu koy xaarandi ngir mu daw ak ci weeru septembre ci atum 2026 dina am ñu bare ñu ci am xëy ndax lu toll si junni ak juróomi téeméer jàpp ñaat téeméeru ndaw daañu ci am liggéey bu ñu amal liggéey bi waaye it bu ñu demee ba ñuy daw ñaari junni ak juróomi téeméeri ndaw jàpp ñett junni ak ñett téeméeri ndaw ak daañu ci liggéey